Ah, li ngay indi naa tamit ay parce que dégg naa euh, daam mu ni épreuve dafa yomb. Ah, comme moom prof anglais la. indi naa épreuve daaw ak yu ren. yu anglais yu anglais. dinaa ko jox épreuve yi jox leen ko mu wan ñu mu pointeel ñu fan la yombe mhm. parce que naturellement sans problème def na def na xam naa def étude bi. indi naa aussi histoire géo indi naa maths indi naa yooyu yëpp indi naa ko mi ngi fii ak français. pour mu wax ñu vraiment naka la épreuve yi euh, yombe parce que aussi loolu nekkul lu ñu wax ci vent bi rek quoi waaw parce que épreuve yaa ngi nii ay compétence yu ñuy visé la mais yow sa jàngat lan moo tax résultat yi am amélioration alors hmm. d' abord ñoom fii ne jànguñu lu ci loolu laa nekkoon hmm. bi ñu defee rupture ministère bi le bras indi à la à la maison indi ay am nañu ay internet dugal ci ay ressources ay leçons ay exercices xale bu am internet di nga ci dugg ah ñu indi aussi télévision canal télévision canal euh, éducation avec ah la am ay télévision privée yu bari yu def ay cours xale yi di di suivre ñu indi aussi ñu def contractualisation ak rajo communautaire yi boo demee ci Sénégal yëpp rajo communautaire ñi ngi ñu ngi reprendre ay cours dëkk boo dem ci langue yëpp nag loolu indi nañ ko fi nga xam ne amul internet. amul télé amul rajo ñu photocopier courrier jëm yet leen ko loolu ministère bi def na ko pour assurer ce qu'on appelle la continuité man naa nag pour nga évaluer ko dégg naa sax kuy wax ni doxul ak yooyu mais mosul dugg ci site bi pour xam c'est combien de visites par jour parce que aussi booy wax scientifique da nga koy da ngay dem fa muy xewee nga kii ñaata ñaata élèves ñooy santé par jour ndax xam nga xamuloo ko xamuloo ko. ñaata élèves ñooy dugal dugal rajo par jour xamuloo ko donc bala nga wax ni doxul da ngay dem nga vérifier ko je suis sûr et certain dugg sax site bi xamu ko sax xamul tur bi donc di wax rek ci lu la neex bi ci tegu euh, bi ñu génnee loolu bi ñu waree reprendre te it bul fàtte ni université dañ ko tëj étudiants yëpp dellu seen kër ban étudiant mooy am rakk ji def CFE. Mm, te wala wala wala BFM wala en doo ko encadré. jàngalekat yëpp ñu ngi seen i kër bañ jàngalekat mooy am doom ji def euh, kii euh, examen doo ko encadré ndax ci dool jàngalekat yi ci boppam créé ay groupe WhatsApp ñoo ak seeni i classe di leen yónnee ay cours ñuy yónnee ay exercices di leen corriger ñuy dellu si ñuy kii jàngalekat yi ci boppam def nañu def nañ loolu. bi ñu reprendre le cinq join conditions yi gën a neex ah, am na sax ñu taxawoon ni bu ñu reprendre jàngalekat yi ñu ngi xaru ji ñu dee ci élèves yi daañu dee et cetera yàlla dogalu ko alhamdulilah rabbil alamin kenn deewul du élève du kii contagion bi aussi amul ci école bi. Hmm. donc yàlla dimbali ñu ci bu baax a baax. après ñu ni taw bi ñu taw bi yàlla dimbali ñu saa wuy def examen sax taw ba <laughs> day yàlla day bàyyi ba guddi gi mu taw wala bu xëyee mu taw. Hmm. alhamdulilah rabbil alamin donc partout on a pu faire nos nos examens mm-hmm. donc bi ñu reprendre classe boo xamee euh, ay bàngalekat boo xamante ne bii soixante élèves nga daan yor nga yor euh, vingt élèves jàngale bi day gën a yomb condition Covid bi daal au mu nekk handicap pour yéen. mais avantage la woon. mais absolument absolument absolument donc wax naa la classe bu nekk équipe pédagogique moo moo fay nekk ndax am na ay ñoo xam ne yor yu woon classe. parce que bu ñu ko diviser sectionné ko am na collègue yoo xam ne du ñu wax classe ba pare nag jàngalekat yi taxaw nag vraiment taxaw a tous les niveaux pour que pour relever défi bi parce que bi même bu ñu leen waxee ñoom daam bi ñu waxee bu leen dem yéen ñëpp si ngeen la xaw liberté cinq dañoo mobiliser wu def élan solidarité nationale kii ensuite parents d'élèves bi taxaw am na parents d'élèves yoo xamante ne jour reprise bi ñoo jël seen doom jàpp yóbbu gouverneur yi taxaw préfet yi euh, taxaw euh, sous préfet maire yi président conseil euh, départementaux yi ñoo fi ñu taxaw ci wàllu surtout donc mesure barrières yi ak matériel dafa am benn solidarité de bu am sans compter ONG yi donc y a eu xam ngeen daal xam ngeen léegi pour yokk pour yokk résultat yu baax examen xam nga ñëw loolu moom da ngeen ko continuer après moom mais kon li li li crivité bi bone Sénégal mënoon na toog na yàcc na yasar <laughs> jafe ñu daam kiy wax dañ dem tëdd suñu kër naan suñu attaaya bu ko defee mu am année blanche <laughs> bu déwénee cinq cent cinq cent mille élèves yi nga xam ne dañoo dem sëy du am fu leen def Sénégal yëpp taxaw président de la république jël ay risques parce que muy président de la république ministre de l'éducation nationale tey ji bu fekkoonte ni bile euh, dañoo am ay cas Covid dafa am contagion ci école yi kon saa waay day kontaan. ah bon ah oui. Ah non daam nag daam nag c'est un républicain bu fa amoon loolu. Hmm. day kontaan waxoon naa leen ko parce que boobu na am dëgg rek mais yàlla <laughs> def na loolu amul donc résultat yi. Uh-huh. bu kenn ni dafa yomb parce que examen boo xam ne. Uh-huh. xam nga ko léegi da nga ko junj léegi. Uh-huh. nous sommes à deçà encore de cinquante pour cent. c'est vrai. nous sommes à peu près à quarante sept pour cent. quarante sept pour cent. dama ne examen boo xam ni boo ko defee ñu ëpp dañoo échoué. moo doon exemple. ma ne dafa yomb c' est vrai différence bi rek bon sens rek. Eh, bien sûr li ñuy déglu bien sûr damay ñëwaat si yow de eh, damay ñëwaat si yow docteur. am na solo pour jàngal bi ah secrétaire général. monsieur Mbodj oui noo jàngatee bi yow da ngay dellu si waat li mu wax je crois que convaincre na la nag. <laughs> gars yi demuñu école mais ñi ngi doon jàng. <laughs> yaa ngi jërëjëf suñu Babacar. ka abord bala maa termine dafa élément bu am solo. bac euh. kenn du ko amee terminal. Euh. bac. Euh. kenn du ko amee terminal. c'est le cursus quoi. c'est-à-dire terminal c'est, c'est la fin d'un cycle. d'un cycle d'accord. généralement xale yi ñëw avec a seconde uh-huh. a compris on a compris. monsieur jërëjëf sëñ Babacar maa ngi kontaan ci ñëw seq ak yéen waxtaan wi. Mm. Euh, d'abord li may kontaan mooy maa ngi jàkkaarloog euh, le directeur de la formation et de la communication du ministère. Mm-hmm. Euh, nga xam ne moom nañ dénk fi ñuy tàggate jàngalekat yi. may wax nag aussi ni débat bi tey vraiment dina dina neex parce que dañuy dem un débat sur un débat vraiment scientifique ñu nekk sur des choses précises. Mhm. teg les éléments subjectifs de côté. vraiment ku nekk.